salaamaaleykum gars yi nuyu naa leen dal leen ak jaamu ci Sen Sport 221 Bingourou Kamara l'international sénégalais moom nag ma ngi wéy di def jaloore ak clubam boobu mu nekk ca Belgique di Charleroi nga xam ne dañu ko fa able ci janvier bile yàggul bi mu fa demee Strasbourg ñoo ko fa able moom nag juróomi match dafa góoloogum bi mu demee ak léegi juróomi match la joué waaye quatre yëpp clean sheet la maanaam ñeent match la góolu yoo xam ne encaissé wut ci benn bal moom kii di bi Bingourou Kamara bokk ñaari yoon ci li nga xamante ne mooy équipe type la semaine lii nag lu am solo ku ne xam ne ne nag jamono yi équipe nationale bu Sénégal moom xat na lool ndax kat ñetti gardien yi nga xam ne ñoo ngi fii ku nekk yaa ngi rey sa bopp ak sa club xam ngeen ne Seny Dieng def na li nga xamante ne mooy dix clean sheet ak club boobu di QPR waaye nag li nga xam ne wane na ko ci kan bi itam dafa nekk lu daal xel ndax ñaari match yi nga xam ne daf ko góole woon gannaaw bi nga xamee ne kii di Edouard Mendy ak Alfred Gomis yëpp dañoo absenté woon bokkuñu woon seeni jëg bi nga xamante ne mooy troisième gardien bi gis ngeen ne ñaari match yu njëkk a joué ci kan bi moo doon góolu waaye nag encaissé wut ci benn bal clean sheet la woon te it mu defoon ay ar yu am solo lii nag di wane ne rek jamono yi groupe bi amul ci kenn koo xam ne yaa ngi caaxaane sa place waaye Bingourou Kamara ngi ca wet ga li nga xamante ne mooy liggéeyam donte ne am na atam lëmm boo xam ne footballul ndax club ba mu nekkoon di Strasbourg ca France dañu ko doon fontoo ndax dañ ko doon teg ba rek jëlee wuñu ko waaye ku ne xam ne ne talent bi nga xamante ni moom Bingu Kamara am na ko moo tax ren bi ñu ko ablee foofu la ca Belgique bi mu fa demee cinq match yi nga xam ne góoloogum na ko wane na ci li nga xamante ne mën na ko ndax ñeent yëpp encaissé wut ci benn bal moom kii di Bingu Kamara. ki nga xamante ni nag mooy Alfred Gomis bi nga xamante ni moom ci ñetti gardien yi nekk ci équipe bi ci jamono ci la bokk. moom nag gis nañu ne tey ji entraîné na ak équipe boobu di Stade Rennais te ñu ngi koy séntu niki suba xam nga équipe nationale bu Sénégal sellu nañu né li ëpp ci joueurs yi nga xamanteni ne ñu ngi won ci kaan bi tay ji gis nañu leen ñu entraîner ak seen club ñom delu nañu bokku na ci ki di Kalidou Koulibaly gis nañ ko tay ji mu entraîner ak équipe am bi Mamadou Loum Ndiaye gis nañu ko keta Baldé gis nañu ko Alfred Gomis gis nañu ko ñom ñëpp ñu entraîner ak seen club waye Alfred Gomis mom sentu nañu né suba ci match bi nga xamanteni Paris Saint-Germain war nañu ko am seen diggante ak Stade rennes japp nañu né ki di Alfred Gomis dana fa nek manam dina titulaire gannaaw bi nga xamee ne mu ngi woon ci kan bi ki nga xamante ne mooy second choice keeper bi muy deuxième gardien bi moo fa nekkoon waaye nag cinq match yi nga xamante ni góolu na ko ak Stade Rennais ci gannaaw kii di Alfred Gomis ñaari match la ci Rennais gagné ñett yëpp dañu koo ñàkk bokk na ci sax match bi nga xamante ni ci la ñu leen éliminé ci li nga xamante ne mooy seizième de finale Coupe de France kon ki nga xamante ne mooy Alfred Gomis amul benn temps bu muy dégg nga bu muy noppalu ci jamono bi waaye daal day dem directement rek bokk ci li nga xamante ne mooy groupe bi tey ji entraîné na ak groupe bi te séntu nañu ne suba ci àjjuma ji match bi Rennes war a am seen digganteeg Paris Saint-Germain Alfred Gomis dina titulaire ci jongante googule ba ñu sukkante ko ci kayiti xibaar yi. match bi nga xamante ne Sénégal a ngi koy waajal seen digganteeg Égypte Égypte ñoom dèjà tàmbali nañu seen wàccaay ci jogante googu te mu ñeel baraasu coupe du monde bi ñoom waa Égypte ki nga xamante ne mooy seen bii di Gabaski moom nee na ñoom dinañu def tout ñoom waa Égypte dinañu def lépp lu ñu mën ba nga xam ne Sénégal coupe du monde bii di ñëw amuñu duñu am dara lu ñu def lu dul toog ci télé di ko seetaan maanaam ñoom taxaw nañu temm ngir éliminer Sénégal xëy na ñoom jàpp nañu ne loolu mooy li seddal seen xol gannaaw bi leen Sénégal dóoree ci final bi jamono bi loolu la ñu jàpp ne xëy na moom war a mën a sere seen xol Gabaski moom nee na dinañu def tout pour champion d' Afrique champion d' Afrique nag mooy Sénégal du am ci coupe du monde bi dara lu dul toog ci télé di ko seetaan lii nag wax la joo xam ne ju fort la comme ñoom jamono yi li nga xamante ne mooy matt yooyu jaral na leen lu bëree bëree bëri ngir éliminer senegal waaye lu mu leen jaral rek ñun jaral nañu lu ko raw bu ñu fàtte ne ñun stade bu yees la ñuy daloo te bu ñu amul chance ñoom ñooy doon première équipe bi ñuy dóor ci stade boobu ñoom waa Égypte seen gardien bi nag xëy na jàmbaar la ko mën a jàpp la waaye nag lii mu wax dañu ko jàppee waxi borom xol bu jeex te Sénégal nag nañu bàyyi xel seen bopp ndax Égypte jamono bi gii ñu gisoon ci final bi dinañu indi lu ko raw ndax am na lu ñu xam ci Sénégal déjà te it dégg nga ngir éliminer Sénégal loolu képp mooy doon lii mën a seddal seen xol voilà kon jogante ko ni ngeen ko xamee la 24 ak 29 mars lay doon mu doon beneen final boo xam ne Sénégal war na ko jouer seen diggante ak Égypte ndax képp koo xam ne génn na mooy dem ca mondial ba Sénégal bu ko ñàkkee rek comme li Gabaski wax dañuy toog ci télé di ko seetaan waaye duñuy dem ca Qatar bu ñu jógee ci loolu nag ca bitim réew la ñuy dem ak li nga xamante ne moo dal kii di Kurt Zouma Zouma bi nga xamante ne waxoon nañu leen fi ni ki démb ne muusam mi gannaaw bi ma ko dóoree dafa am ay yar yoo xam ne dalee na ko ci bokk na ci enquête bi nga xamante ne ubbi nañ ko ci mbiram waaye nag tey ji kayiti xibaar dañoo fesal ni muus ya mu dese woon muy yeneen ñaari muus yu ma amoon këram yëpp dañu ko ñëw foqati ci loxoom yóbbu loolu doyul ñi nga xamante ñoo di West Ham United ga muy footballé dañu ko teg dégg nga benn amende bu toll ci 340 000 de dollars 340,000 dollars ko teg comme fine moom kii di Zuma loolu lay fay ñii di waa West United loolu nag di yar yoo xam ne dañu ko ko caw gannaaw vidéo boo xamante ne gis nañu ko moom kii di Zuma di méttital li nga xamante ne mooy benn ci ay muusam comme ni leen ko waxee yeneen muus yëpp nangu nañu ko dégg nga euh, West Ham dal di koy teg ay daan te ñi xamante ne ñoo di foofu la ci Angleterre gars yi ñu ngi wéy di def li nga xamante mooy seen i ba ki nga xamante ni sax moo doon filmer li nga xamante ni mooy vidéo boobu jàpp nañu ne frère Zuma la moom club ba muy footballé nekk cinquième division foofu la ci Angleterre dañu ko daal di suspendre dootul footballaat ci club boobu fekk enquête bi demul ba leer voilà fekk enquête baa ngi dem moom kooku dootul footballaat ci club boobu moom kii di frère Zuma bi nga xam ne moom lañ jàpp ne moo doon filmer vidéo boobu Zuma moom comme ni nga ko waxee trois cent quarante yeneen daan mën na ciy tegu ñu déglu li nga xamante ni nag moom la kii di Antonio wax Michael Michael Antonio bu West Ham United gannaaw bi nga xamante ni ñu bëri jàpp nañu ne Zuma daan ñu ko teg nii mérite na ko ñu déglu ba xam moom lan lay wax. ki nga xamante ni nag mooy Michael Antonio li mu gaaral mooy ki nga xamante ni mooy Zuma donte ne li mu def moom àndut ci ak moom rafetlu wut ko waaye dafa am lu gën a am solo loo xamante ni moom lañ waroon a xeex te xeexuñu ko muy wàllum racisme ndax kat foofu la ci Angleterre nee na am na ay nit ñoo xamante ne jàpp nañu leen ci wàllum racisme bu mu leer waaye nag li nga xamante ne mooy seeni i club ay match képp la ñu leen di teg ay daan bu match yooyu jeexee ñu dellu siwaat ci terrain bi di football mel ni dara mosul xew nee na loolu ay mbir la yoo xamante ni moom la ñu waroon a gën a xeex k yi nga xamante ni moo xew xam nga kii di Zuma daani ñu ko teg métti na ci frère bi nga xamante ne day football ci clubam sax ñu teg ko ay daan waaw bu fekkente ne ki nga xamante ni dafa méttital muus ñu daan ko daan yu métti yi rawatina ki nga xamante ni dafa méttital doomu aadama kon lii li muy mandarga mooy tubaab bi muus la gën a farataal wala muus la gën a gën a jox àq ci nit ku ñuul loolu lañ ci mën a jàngaate kon kii di Michael Antonio bi nga xamante ne mu ngi dund ci seen biir wax kàddu yi ñoom war nañ ci mën a gis seen bopp bàyyi waar xel ci li nga xamante ne ñoo ngi koy def bu donte ne ki nga xamante ne mooy Michael Antonio li mu wax leer na àndul ak Zuma ci li mu def waaye li ëpp solo te ñu waroon ko gën xeex mooy wàllum racisme te ñoom ñu ngi koy dund ay mbir yoo xamante ni ñu ngi koy dund muy ay métital ak lu ni mel foofu la ci Angleterre te daan yi nga xamante ne moom lañ ci war a teg teguñu ko ci kon nag loolu mooy li nga xamante ni moom la ñu fi expliqué léegi tubaab bi nit ku ñuul muus sax la gën a jox ak ci moom. ci Angleterre googu la ñuy des ki nga xamante ne mooy Philippe Coutinho moom nag dañoo gis ne daal bi mu ñëwee foofu la ci Aston Villa ak léegi daal kenn mënu koo téye moom daal gis nañu ne li nga xamante ne wane na ko ci saison bi Jack Grealish bi nga xamante ne bi sason bi tàmbalee ba léegi mu ngi fële ci Manchester City deful sax lu raw li nga xamante ne Coutinho def na ko xam nga Coutinho ñaari matt la joué gum ak Aston Villa ndax fan yi rek la fa ñëw ci janvier bi ne ci la ñu génn waaye nag ñaari match yi mu joué daf dugal ñaari bal dégg am ci lu toll ci ñaari passe décisive deux matchs 2 bi deux passes décisives moom Philippe Coutinho Jack Grealish bi nga xamante ni xaalis bu baree bari la ko ñii di dégg nga ñii di Manchester City jëndee foofu la ci Aston Villa moom joué na 16 matchs 2 bi la marqué ak deux passes décisives kon ki nga xamante ne mooy Coutinho ci ñaari match yi mu joué rek dab na saison ki nga xamante mooy Jack Grealish te mu Coutinho nag jour boo xamante ne daanaka amoon na amatul woon place fële ca Barcelone waaye nag dellu si bi mu dellu si Angleterre lancé waat na ko te ki nga xamante ni nag mooy entreneur am di ki nga xamante ni mooy euh, Steven Gerrard nee na ñoom am nañu option ngir signé ki nga xamante ni mooy Coutinho bu saison bi jeexee muy 40 millions d'euros yi nga xamante ni ñii di waa Barcelone ñu ngi koy laaj. ci Angleterre googu la ñuy des ak ki nga xamante ni mooy Diogo Jota bu Liverpool moom nag kii di xibaar dañoo fësal ne saison kat dafa dox lool ndax jamono yi sax moo nekk deuxième meilleur buteur foofu la ca Angleterre te it moo nekk benn joueur boo xamante ni dal dinay def jaloor yii ñu bëgg wax marke na 3 bi ci pied gauche am marqué 3 bi ci pied droit am tam li nga xamante ne mooy 5 bi en tête loolu nag amul kenn koo xam ne def nga ko foofu la ci Angleterre ñetti bal marqué na ko ci tànku ndeyjooram marqué ñetti bal ci tànku càmmoñam waaye dugal ñetti bal ci boppam buñ ko boolee muy fukki bal ak benn muy onze bi loolu la marqué moom ki nga xamante ni mooy Diogo jotaa amul beneen joueur boo xamante ni dafa nga ni mu ko defee ci li nga xamante ni mooy anam yi mu dugalee onze bi yom yile moom kii di Diogo jotaa foofu la ca Liverpool